كل زار وفي زفر حماني على ما هم مع الحس والسفر بلا سمع الله بلا نسمع في سيدي تأكسر بسر أكسر تخبر راتيون سيدي تخبر راتيون ñu ci ay xamal bu réer boobu ba léegi nekk ci waxtu di ko yéem di ci yéem gënu sëriñ bi ci yéen ndax képp ku fi ma sa nekkal sëriñ bi rek sant na leen gërëm ci seen taxaw ginnaaw bi tam Cheikh Mamadou Moustapha Kébé moom itam da ngeen defoon jëli rek ngeen defaraat te moom moo ci xaas boobu xaas bi mooy ba nga tàmbali liggéey ba dëgg yi mu ko war a demee te la ciy firnde mooy Serigne Saliou di ëpp lu mu daan bu koy defee ñëpp xam lool nga xam si te dégg naa mu seere moom yàlla dafa def lu mu julli rek kooku xamal la ñu jëlee waaye te suñu côté bi mooy ñeneen képp ku doon xalaat ci yéen day day mën a ko jàpp ne Sëriñ Tuubaa loolu soo ko def Sëriñ Tuubaa dara dund ndax seen xam-xam seen xam adduna bi ñu toll wóortama wóortama ak possible kon nag loolu la toofal bi ñu am ci xam loolu ndimbal la ndax am na ñu ñu kon wàccu ñu kon nag ñu fépp ku toll ñu nga jaxasoo ngeen xam ne danañ ñaar ndax fi ngeen féete yoon féete sëriñ yaakaar naa li nga ci xam sax ñu ci xamul ndax noonu la ko suy seetlu daa wax rek bi lépp lu ma ci bëgg a gañ bu ma ko wootal mu nii bu ma ñu gisul moom maa ngi lekk si mbas ci yu bare moom ginnaaw yàlla ñu ma ko na ko boole suñu ñu ngi rafetlu liggéey bi di nuyu bu baax ci taw féex yi ba ñi nga xam ne sëriñ bi defal na ko ndax léeg-léeg lañ la yéen ci seen loxo mooy wér bi ngeen natt ngeen boo demee ci xasida bu leen ci Sëriñ Tuubaa fayee loolu sëkk ndax njëkk ngeen ci taw kat xam ngeen ni dem na ba ñaari cosaan nit ñi di ko bëgg a ngeen tax ngeen taxawu ko yàlla defal leen ci doxalin suñu saa yi daa wax li ma gën a yéem si ñoom rek képp ku ñu fekk si si sa daañu fi si roy na si sa daaxal ko rek kon gis nañu rek bu leen gis ñu ci waxee doon sëkk day mel ne boo ko rafetlu bu ngeen seetloo seen liggéey yem jàpp naa yëpp naa li ngeen ci defal moom kenn defu ko coono waaw ministre mooy doon kuréel yi ci fekkee yéen lañ ci ko kon loolu la ca defaru waxuma li defaru ci yéen waaye ñi jaar ci yéen ba defaru ci yéen loolu ngeen boole ko jëf jëf yoo xam ne gis ta dara buñ la ñuy dépassé ci at bi daanaka boo yore ñaari bi daan tegal te doo dégg doo ñu xam firnde ji dégg ngeen bi sëñ bi wootee ministre teguñ ci ñaari weer a ñu yëkkati deux cent mille tàmbali ko liggéey te bokk sa yàqal lay ci jëf ji nekk barab bu ñu topp bi dafa xaw a tax bi yéex suñu aatu xam ne ñi nekk daal looy yéene leen bu gën a rafetee te seen àll si te kon yéen eh, képp ku ci seen ginnaaw di jëf ngir Sëñ na ko ne lii mu man bii itam li ma xam ci seen jëf du la woon wax ci kanam. yenn jëf moom ñeex la ñeex la jëf te duñ bëgg su ma la ko xam léeg-léeg sax dama ko dama dama ko bett ci daara dama ko nit li ñu def nit ñi wax lañ ko mën na ñu desi nañuy seere suñu tubaab rek ndax jëf bi bëgg ñu xam ne kon salaam ki ngeen di ki ngeen di jëfal doy na sëg seen lépp nag ci biir yoonu sëriñ bi ci ëttub sëriñ bi ci tool sëriñ bi te sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne nii la Hizbut Tarqiyyah taxawee ci wane li nga xam ne moom la ñu war a wane ci nekkinu sëriñ bi ak liggéeyu sëriñ bi da koy delloo ci inni ujaahidu bil ulumi wa bit taqwa ndax sëriñ bi. lu jëm ci moom faw nag xam-xam bi daa war a jiitu ndax loolu mooy li nga xam ne moo ko waxal boppam te ci loolu nga mën a teg sa tànk ba ñu xam ne liggéeyu Sëriñ Tuuba waxtu wu nekk dafa war a gën di feeñ te tàmbalee ko ci ñoñom ne sax dana weesu ñoñom waaye ne mu tàmbale ci ñoñom loolu moom gën a yéem ci seen liggéey bi dolli ci li nga xam ne moom dañu sumb ci wàllu xam-xam bis boo xamee ne àgg nga fi nga xam ne foo la war a àgg dafa naa ne mbir mi incha allah sa Cheikh Bachir xol dina ndax ñi ngi ci ak yéen ñu rafet yoo xam ne lépp dafay delluwaat ci liggéeyu sëriñ bi ak wane liggéeyu sëriñ bi loolu nag kon dañu mën a wax ne liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey jaadu na kenn ku nekk ki ñun ñu xam ne ñi ngi koy liggéeyal Serigne Touba nu koy defee moom mooy nemmiku leen yëg li nga xam ne moom la ñuy doxee ba ci xasida yi nga xam ne junj nga ko léegi nga xam ne ni lañ koy liggéey te nag loolu mooy li nga mooy ndono li nga xam ne moom la ñu war a gën a jàpp ci liggéeyu Serigne bi kon Serigne Atou ñu ngi leen di seeral suñu cant ak suñu ngërëm. ndax li ngeen nekk ñëpp dañ cee seen bopp. bu doon loo xamante ne dañu ko beral ñi am xam-xam dong mu yem ca kon lu baax lay doon lu mucc ayib lay doon waaye xeex bu kawe lay doon boo xamante ne bii ña ngeen koy séqal ñooy wëlbatikuwaat di ci ànd ak yéen ngeen du ko jéem a tasaar du ko jéem a wàcce waaye kenn ku nekk la ko tàmbalee ca ka am xam-xam ak ku ko amul ka nga xamante ne bii soobu na ak ka sóobuwul fu xoolee ci li ngeen nekk rek dina fa gis potox ndol bo xamanteni bi bu ca ngoyé dina am lim bëgg xat na ci gis waaye barkel na ci yaanu ndax bu ñaké fi di mëna wax ak wa àddina bi yépp ñëpp du ko gis ñëpp du ci sof mu tollu ci ni ma koy waxé di soññewaat ci xam-xam ndax xam-xam musu fé dé xam-xam musu nax say waye waaye soñé soññewaat na ci soñé bo xamanteni bi kon bu dikkee dëppoo ak li ngeen nekk ak niveau bi nga koy defee kon loolu duñ mën def lu def sant ci yàlla. fi ñu ko wanee ak yoon yi ñu ko teg sëñ Sidi Muxtaar daf ko daan wax ndax sëñ Sidi Muxtaar dafa wax léegi li sëñ Bass wax nii sëñ Sidi Muxtaar dafa daan wax ni li ma gën a yéem ci ñoom mooy way gi lépp lu ñu def waxtu wañ la wax bu jotee danañu ko def lañ la ne danañu ko def danañu ko def lenn lu ne ka koy def du bokk ak keneen ka ca des ku ñëw bëgg a dugg ci lu kenn du ci ñoom du dem di dugg ci lu keneen war a def loolu sëñ bi daf ko daan seere daan seere itam di wax ci sëñ aatu bii kon lu mel nii tey bu amee innovation bu mel nii su amee duñ dinañu yéem duñ yéem ndax déggoon nañ lu nuroog moom démb ak bërki démb ndax liggéeyub sëñ Tuubaa bu nangu moom lenn nekk dafa dafa nekk ci biir te tam euh, yokk gi nga xam ne doxin wii yokk na ko ndax boo xoolee matériel bi ne fii logiciel yi ak mboolem technologie bi fi ne yëpp te nga xam ne ña ko fi def jëggaane wuñ ko fenn ay ci biir yoon lañ ko jànge mane ko ci wëlbati wëlbatiku ñëw servir ko ci yàlla jox leen itam loo xam ne man ngeen koo euh, wuti ñëw ba ñooñu itam duñ jëggaani fenn dara mën nañoo dema dema ba nga xam ne lenn loo xam ne dañuy dem di ko wuti feneen déetee su ko wuti ndax lu ngeen am sëñ Tuubaa ngeen ko moomale kon loolu mën nañoo wax ne innovation la boo xam ne dafa jaare

ñun ñu nekk ci biir yoo xam ne ñu dund kilifa yooyu ah gis nañu yenn woote jumaa ji kon daa yoo xam ne ñu ko gën a kawe waaye ko gën a rafet mun taal mooy ni ko sëñ bi waxee woon bëgg ko ni ñaan ànd ko moom defe ko loolu bëggoon a leeral mi day niru ne ci ñun la jëm waaye Cheikh Mouhamed mi toog moo ko moom ndax ba ko sëñ Touba dimbalee ba lii mu yor nekk ci loxo ci la ma woo ba ma ñëw mun ma yéen damaa xam ne liy dundal bis bi man ngeen ko ma bëggoon du ma leen boole kenn maa koy ànd ak yéen taxawul leen ngeen defal ma ko ba nga xam ne bis bi dana dund bu baax a baax kon luñ ci def lu mu rëy rëy xalaatuñ ko woon moom moo xalaat jumtuwaay yi amoon nañ ko naka jekk ndax bu dee ba ma koy wax keroog bu ma delloo dama ne gars ñu ngi ci suñu fanweeri at ak ak nangam ci ay gëstu waaye tey ji kii bëgg na moom ñu yaatal kon li bëgg lépp bu woon lu kenn man dañ ko def dañ ko def suñu sañoon fii mu koy fii mu yem nii dina ko wees kon man de ci turu daara isbu tarxiya ak turu yoonu murit yëpp maa ngi xamal sëñ Bass ne ko ndam li yaa ko moom su amee yaa ko moom euh, réussite bu ci mën a am yaa ko santaane yaa ko te it seetaanu ñuy tam waxtu wu nekk yaa ngi ñuy nemmiku di xam fu ñu toll kon ñu ngi ci sant ci turu sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moom itamit bi mu ñëwee dafa wax ni sëriñ Bassirou moom dama koo seetal sama bopp ba mu doy ma sëkk ma seetal ko sama bopp ba muy murid saadix moo tax lépp lu mu yoroon dama ko yokk rek na ni ba tey eh, day yow ndax mu yoree lépp ñu saa yu ñu la gisee rek defe nañ ni moom taxaw na liggéey bi moom ñu mu moo ceew dara ndax moom mi moo ko moo ma ko sant ma di ko def kon ñu ngi lay sant bu baax Mbàkke في كل زار وفي سفر